xuloo leen fi xeex benn problème bu leen fi dama lamb dama yaakaar. non attends attends. waaw ah, kon nag léegi sa sa kàddu gu mujj. waaw di sant ñëpp di sant waa Fass di sama yaay di sant waa France jàppale si baax a baax. waa France bu a kaay toog ay Makitara ay petit Elage mu gaaw mu gaaw père. sonné si man ay petit Elage jàppale oh, oh, oh. waaw ay Abu bu kenn yëg ci waaw ay Pao Seydou ñu sonn si man waaw di ñaan yàlla jëm kanam di sant ñëpp jërëjëf. père lu ma la waxoon. père entraîné wu ma benn far ci combat bi. waaw Bousse. mais lu tax entraîné wu la Bousse. Bousse. Bousse. ta bàyyi ñi waxal ak ñi lay seetaan wax ak waa plateau bi mënoo nekk nag fii nekk ci kër maa ngi lay béggee bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga dégg waa looy ree indi ko direct lu TV. mais combat bi dafa yàgg da ngeen di rek. fii moom amul lu ngeen di seetaan ah, ah lii. jàpp sama ngemb jàpp na sama ngemb benn 3 minutes ma koy kuccal mënu maa daan boobu jàpp ma fenn billahi si combat bi ah caméra yi dañuy tàkk Lamine eh. Lamine boo waxalee yàlla sunu borom xam ni li nga ñëw jël ma yëpp da ngaa fekk ma tëdd damay jug def dara nga jël ma ma tëddaat nga dindi caméra yi xoolal combat bi ñemew ma kii moo amul fit Ziza mii na bàyyi bëre amul fit. <laughs> sama jabar moo may woo waa bébé <laughs> ah noo ma gisee noo ma gise ah. indi ma wax ak moom indi ma wax ak moom nee na booy ñëw da lay teeru. waaw barki yàlla sama jabar. Jamaïcain entraîné wu ma benn fan su caméra yi tàkkee ma yëngatu bu caméra yi fayee ma bàyyi dama nit ñi da doon metti mais xam nga lu tax ma xam nga la laay suñu leen waxee ñëw leen bëri si. c'est très important ñu bëri si barki Seydina Mouhamad. li muy wax looloo tax ma bëri si. li muy wax c'est très important waaw Lat Diop waaw. xoolal kii. ñi ay xarit lañu ñi ay xarit lañ ñi ay doomi ndey lañu Ziza waaye déedéet ñi ay gaañ lañu lii moo rafet lii moo rafet lii moo rafet bàyyi leen leen lii rafet na waaw. jox leen euh, man épaule bi métti laa amee di ko bëre man dama nëbb sama blessure jare 2 moo ma gaañ si épaule ma koy nëbb di bëre waale moom xam nga yaa ngi damay santaat yàlla uh-huh. damay santaat yàlla bu baax micro parce que fii tey ñëw ma pour daanu damaa ñëw pour am ndam dëgg la li ma sama yaay Nafi Diagne wax laay def ñëw pour am ndam moo ma tax a jug combat bi li ne laa perte li ma daj moom daju ko hmm. mais ko man maay bëre man maay avancé. li nga na loolu sax. moom na moom wax na ko man moom daj eh, wax na ko moom wax na ko moom wax na ko. waaw. lii yaramu oh, yaramu original la. non yow yow déggoo li ma la yow. yaramu original la. yaramu yaramu kii la nu mu tuddati yaramu naturellement. moo moo nekk nii. yënguwuma benn fan père père. wuy ma mais mais non non bëgg ma rafet buuse. buuse buuse wuy ma. man damaa bëgg mu rafet xam nga ma ne mu rafet buuse yow bu dul dara ko yow suma mbokk nga xam nga ne buuse amul dara yow buuse nañ sekk jàmm nañ sekk jàmm quoi loolu moo ëpp solo tey yàlla lii la def man la jox victoire dama xaar xaar xaar a rek boo fi waxee victoire non bu jël mais victoire la man mii maay jël drapeau. waaw ah, déglu victoire la. victoire la. Ah, euh, fu ah. man fu. Ziza waxal waxal. Ah, ma dem. léegi. Ziza gërëmal dem. jërëjëf kontaan nañu ci yéen jërëjëf kaay non da ngeen di wax no non attends Ziza bu Ziza yow ak Boussa da ngeen di wax ak ñi ngeen ànd ñu génn ci affaire bi écarté sinon ngeen jóg dem rek. waaw suñu mais Lamine léegi ko combat bi ñëw. gaa ñi ngi sant samay saab ñu nekkoon ci yëpp di si jàpp maa ngi leen sant baax di baalu ñëpp ak Sénégal yëpp ñu ngi leen di baalu ak parce que man mii comme am des cinq jours dama naaj problème dama dem forote wu Lamine lambal sama mag Lamine lambal lambal lambal lambal lambal blessé kay gis nañ mu blessé gis nañ mu dëgëlee lii laa dum bëri waaye mënu ma kaa wax kenn man doomu koor laa du ma yàq laa mu jàmbur jërëjëf ba muy ñëw toog si me bu awee ba mu fooxee barki sëñ Abdou Lahad mënu moon wax dama doon sooxaal di dem moo tax mënu moon def yéen nii soo dugaloon médical ñëpp génn non man du ma du man bu ma doon dee sax du ma dugal médical du ma ndam li est nii nga ko bëggee woon ndam li non bëggee ma ko nii parce que man sama yaay na fi jaañ ñeneen la ko bëggee mais ñu bari nañu waxoon ne yow da nga war a ñëw xeex ak buuse lan moo tax taxul du taxaw taxawul boo dee seet su ma ñëwee day man maa attaqué man rek maa attaqué non ma ma non ma non tax 5 millions mu yoroon bu ñëwoon rek mu dóor mu daan ñëwul kii léegi la ba tax 5 millions léegi la moo tax léegi muy daw. loolu xam ne moom moom bu xamoon sama loxo jàpp ma jàpp na ma ba jeexal. jàpp ma te mënul liggéey non non damaa jàpp taxaw man mosuma jàpp taxaw na lu ma koy wax. damaa jàpp taxaw sama épaule day métti barke sëñ Abdou Lahad nii laa mën a bëree. parce que yow say moo doxul woon. kii dañ ko jaxase. baa njóobu maa ngi lay sant di sant sama ñoom 10 000. léegi yow fan nga jëm fan nga jëm non pour l'instant nii ah da ngay des waay pour l'instant nii pour l'instant damay toog. waxat ak samay encadrement. non jëlal combat su ma waxaat dinaa jëlaat ak komba maa ngi naan faal combat la. combat la waaw. waaw waaw maa ngi naan di faal. Baye Ndiaye mooy taxawal sama combat naan di faal demal nga xooli leneen. demal nga jëli wulli. waaw booy waaw booy booy man loo xam ne lu may waxaat. yow yow man non combat bi Baye Ndiaye moo koy tëggaat yéen ñaar yéen ñaar Baye Ndiaye dina ko tëgg yéen ñaar. pare pare nga man man xool ci combat Eumeu Sène boobu yow la yow yow wuy ma man man sam bopp kii sama mbokk Baye Ndiaye leeral ko ay millions mooy tax muy bëre kii ay millions la waaw man moom du ma ay millions lañ la war a champion nga jërëjëf kontaan ci yow yaa ngi yaaw jaal yaa ngi yaaw jaal mu ngeen bëre le bay wuy ma wuy ma man lamb ji Pikine ñu bëri dañ ma sa mere woon du ma ñëw di assemblée sama combat di sant waa waa Sébikotane yi vraiment maa ngi sant waa Sébikotane yi sal sama yaay Nafi Diagne waaye kii di maa ngi sant ñëpp parce que wuy ma Lamine. Lamine jërë de mënul jugee si Albouri ma ñëw di def loo xam ne ni mooy loolu ñun luñ mu tam dañuy jël ñu ngi sant ñëpp di baalu Sénégal yëpp ah. jërëjëf lii laa mënoon bëre waale. kontaan ci yow Mamadou. mon ami jërëjëf jërëjëf dama. jamay kee maa ngi lay nuyu. jërëjëf xaaral combat bi maa ngi ñu libéré kii ba pare xaaral ñu libéré kii ba jërëjëf kontaan nañ ci yow kontaan ci yow naa fa ñëw ci kanam naa ñëw sa koñ ci kanam bu lamb ci jeexee bu soobee yàlla. Lamine waaw. damaa gaañu gaañu bu méttee métti. waaye mais Bousse gaañu woo woon foo gaañu. da nga doon contact da nga doon contact. damaa gaañu woon gaañu bu yàgg mu yeewu. bu ko yeewoo yaa ngi dégg entraîné wu ma benn fan. Père Pala benn fan laa entraîné Lamine mii moo ñëw jël ma. diine bu ñëwee xolal xolal Père Pala Lamine bu ñëwee bu taalee caméra bi ma entraîné bu fayee ma tëdd ñambaat mi mo ma yëkkati. yaa ngi dégg boobu xaw ma lu may def man damaa yaakaaroon ni sama plainte sama sama sama kii bi médical bi dina jàll far jàllul yaa ngi dégg ma am problème munu ma yàq lamb ji Lat Diop ne ma affaire de loi la Omar may moo ne ko Boucher daa dugal médical ñu bañ jàpp ci mu ne ko du ma ko def affaire de loi la te nit day respecté loi na dem bëre ji pour ñeneen ñi nga xam ne bu ñu dugalee médical CNG bu bëree bu bu bañee lu am solo nga wax ñu mën a xool ci man dem bëre ji très important su ma bañoon rek keneen dina te man porteur de voix laa àdduna bi ma victoire bii nag ma am may naa ko Lat Diop Matar Diop suba teel Pape Diouf Bébé Baas Badara Gadiaga Ismaïla Baas Birane Ndour sama yaay sama papa samay doom victoire bii ma am victoire u màggal gi ndax man xam nga du ma màggali non non victoire li victoire xam nga yow la noo ko amee nga tax ma bëgg la waaw waaw léegi nag Baye bis boobu maag Tapha Mbeur ñoo ciy bëre Tapha Mbeur laa soxla Tapha Mbeur mi nga xam ni moo nekk ci dëkk bi di rëy lammin lu ñor mu wax lu ñorul mu wax moom laay xaar Tapha Mbeur kaa ñu bëre. Ah. dama laa soxla maa la bu dool Tapha Mbeur xam nga yàgg naa koo dëkk. doy na Tapha Mbeur yàgg dëkk. dëkk nga ñëpp dëkk nga Pokola dëkk nga Zakob. waaw mais nag man parce que Tapha Mbeur laa gën a soxla su nanguwul ñu jëli Pokola Baye Ndiaye maa ngi ñëw jël sama avance léegi léegi Aziz may naa la bi. waaw. Pape Diouf Aziz Ndiaye Pape Diouf. Tarba Mbaye Tarba Mbaye. waaw Lat Diop nag moom. waaw mention spéciale moo nami dafa leen Omar Mbaye. Omar Mbaye kenn du moom. ak Waly. waa si. jërëjëf jërëjëf père bu la yàq direct bi père Reis kii kii kii àndul ak Waly moo tax moom nee na Pape Diouf la àndal. ah Waly xale bu eh, baax eh, eh, booy bu gisee jàpp ci rek yaaw jàllee non vraiment na gars yi nag ñii ñii nag vraiment dañuy bàyyi seen loxo. maa ngi gërëm Samba Ndour bu baax Samba Ndour sëñ Xaadim Koriandé ak kan ñaari ñaari maara rek ma ngemb de saa Touba saa Touba waaw Samba Ndour maa ngi lay gërëm bu baax Fallou sama xarit sama doomu ndey Fallou waxoon na ma du ma daanu mukk Fallou jërëjëf maa ngi lay siyaare Lamine maa ngi lay siyaare Lamine yow xam nga ni ndam laa am ndax entraîné ma kan bisu ngoone 2STV maa ngi koy gërëm Omar Mbaye nel la Diop nel la Diop nel la Diop maa ngi koy gërëm merci beaucoup Bousse ace jam père waxtaanal ak jam mu gaaw waxtaanal ak jam père père waxtaanal ak jame mu gaaw toogal toogal mais jam maa ngi lay nuyu déglu rek maa ngi lay nuyu fay waaw lamb ji moom tey gis nga ni mel diggante Bousse ak Ziza adduna yëpp ñoo ko waaw waaw di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax. waaw waaw yàlla defal ko ci lu kawe njortam lépp lu mu ci am yàlla na ko jik waaw dina nuyu njabootu làmb yëpp. di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu sama papa Père Ba bu baax. jërëjëf sama directeur Mansour Ba di nuyu njabootu Père Ba gi yëpp. waaw yaa ngi dëgmal bis bu rëy de. waaw le 13 août. waaw diggante Bébé Diène ak Baye Mandione. laa ilaaha illallaah. Euh, bu bu Siteu da ciy bëre ak Boy Plateau. waaw Ramdan Signor Douglas. Douglas. Laxi Bambilor da ci bëree moog booy jaxaaw moog booy jaxaaw combat yoo xam ne nii ñammi ñammi bébé waali caatu kolobaan liiru jaan bu ngor nga xam ne ñoom waa ngor yi bu ñu jógee gis nga li leen topp gis nga tey si tabu ngor waaw ñu profité di leen di bu baax a baax a baax waaw di ñaanal ñëpp jàmm xewal di wax ne a yi ñu ñaanal ñu le treize août ñu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabbil ma njoon mu ci wàccaay bi bébé jeen deux cent mu ngi Suisse waaw dem waa ji combat bi kon am na fu ko combat bi toll waaw waaw John tamit am na fu ko combat bi toll di profité di nuyu waa Suisse yëpp di nuyu sama partenaire man sa depuis Suisse maa kon Bébé Diène ma nga Suisse waaw mu ngi ah, loolu am na solo waaw di nuyu ñoom Jeylaani Pouy da Suisse mu ngi fa dugg ba génn Jeylaani xale bu baax boobu kenn du Jeyla Jeylaani Pouy kooku Alaaji Ablaye Pouy moo ko jur góor gu baax gu nekk ca mbaaw kon nag boo tuddee Jeylaani tamit sama mbokk di sama deret danaa la wax ci moom lu bëree bëri ne dafa donn mbër gi daf koo donn ci bàyyi doon xale boo xamante ni nit ku yiw la jërëjëf ba mu ci jógee tamit ba léegi mi ngi jàppale waa làmb jërëjëf père loolu am na solo mais jam la treize yan innovation lañ mën a xaar ci jam production waaw la treize yëpp xam nañ ne jam production day tëj day tëj day tëj sosom ah. kon la treize dañ xaar lépp lépp lu doon jam def ci làmb incha allah rabi le treize da koy yokk. daaw ñaata journée nga am six wala sept. daaw dafa naa cinq journée. ren ñu gis nga def deux xaw ma un. waaw ren nag deux yi sax dañ ko jaayante ndax gis nga. waaw làmb ji ñu demee ren. promoteur yi yokku nañ ñu am problème mu date stade bi am ay cas de euh, ana bi. waaw cas de force majeure yu bëri. yëngu-yëngu yi bëri ñu annulé lamb yu bëri. moo tax ren benn promoteur mënul def deux journées. déedéet. ku te am ñaari jour na jàmbaar nga waaw saison bi moo mel noonu waaye déwén incha allah rabi bëgg ah li nga nar a ubbee bëgg nañ balaa janvier jam production dóor ñaar ñaari jour na ndax bombardier rek rek mu ngi sunu kanam mais bombardier rek rek ban mois nga ko bëgg a def avant élection yi incha allah rabi dinañ ko tëgg mbaa du egg janvier non non au plus tard moom duñ génn janvier incha allah rabi waroo faa dugg sax non ñu ngi wax xam non non wuti woo dara xam nga am na kay décembre rek baaxoon nañ. am na date boo xam ne. waaw prévoir nañ ko waxtaan nañ ak CNG. déet wax bul waxtaan ak CNG kese doyut. non. janvier nag mooy loolu. non am na date boo xam ne décembre am xam ne comme confirmé gul. waaw bëgguñ ci wax ndax jamono ji nit ñi sax xel la ñuy dox. waaw waaw xalaat fekk na koo xalaat. waaw léegi boo ko teelee annoncé rek gars yi na nañu dem jaar ci suuf. tabatin boobu tabatin am na seen le 12 novembre rek incha allahu rabi. non ñun incha allahu rabi. tey ñaari mbëri def nañ. lu lu lu ay mbër mës def. mooy lan. ci waajal. ah loolu am na solo. taaw tey boo gisee. kon boo gisee direct bi yeex sax. loolu bokk na ci li ñu tardeel tey dugg nañoo moom dugg nañoo ñoom ñaar ci ruq non loolu mësula am. ci lamb jamaïcain ci lamb. mais da ngay xam ne nag da ngeen xew ci jamono. mës ta am. lamb loolu moo ko war a yokk. waaw war a def innovation yi. waaw pour lu yokk lamb. Bombardier rek rek tamit nañ ci xaar lu bees tax. lu raw loolu. ndax ñoom ñaar. lu rëy ci litti bi. xam nga yóbbu woon nañ Papa Sow ca gaynde. waaw dama bëgg tey ñu dem ca gaynde yi fatale yi. Bombardier téye ci benn mbaggu gaynde. rek rek téye ci benn mbaggu gaynde. ñu ànd dox ñu xëccoo ko waaw. su boobaa nag ñu xool ku ci ñàkk saa si kaw gaynde gi rek. di wax ne daal la ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ñu. jërëjëf yàlla def si jàmm xewal ah. sutura baax a baax. kay dinañu daafa. doomu farba ngoor ñu koy sànni baax a baax a baax. ñu ngi koy nuyu waaw. combat bi sa taba ngoor mooy ko ñu ngi koy nuyu